Moksama Samagal TV Moko internet nous sommes ci deuxième édition Fila tey nag ñu taxaw ci bergerie boo xam ni champion ma fekk euh, dina nuyoo wax ma fii mooy fan ndax fa ma ko daan fekk ak fii du benn defe naa nag moom liggéey bu am solo def ci élevage moo tax mën nañ ko fekk fu nekk tey Chérif maa lay nuyu. waaw Cissé maa ngi leen di ziar. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. di leen wax euh, dalal leen ak jaamu bergerie One Family Xidmatul Xadim. Mm-hmm. nekk suñu troisième sortie édition fila 2023 ñu nekkoon stand 183 184. di leen dalal jàmm di dalal aussi sama copain Cissé Dia. macha allah si Samagal TV. jërëjëf merci beaucoup ça veut bii mooy seen troisième génn foire. foire waaw. macha allah xidmatul xa euh, bergerie boo xam ni. ba ko nit di xam dafa def benn recrue bu naan ñang baalo. waaw ñang baalo nekk euh, jeune mâle bu doy waar toj cee rëyit euh, toj fële res. Hmm? mu nekk di di liggéey ak moom ba tey mu ñëw exposé tey fii fii gis ñu ñang baalo mais ma ñëw fekk fi ay femelles yu doy waar lan mooy liggéey bi ak fan ngeen toll. waa ah, comme que ñun moom ay débutant nañ ah. euh, dañoo ñëw di liggéey si bergerie bi si qualité. Kaso laal nga point bu am solo muy Niang Ballo. waaw ah. moom la ñu recruté fan yii passé mu nekk mal boo xamante ne kenn dootu ko présenté si élevage à travers ses mensurations. Mm-hmm. Euh, mu nekk euh, ñu recruter ko pour liggéey loo ko. parce que élevage moom di si ëpp solo mu ngi jënd xar bu cher liggéey loo ko. waaw mais contexte bi nekk woon concours yi. looloo tax ñu jënd ay famille yu baax. li ñu naan mal moom la géwtal jabar lu mu baax baax. macha allah ñu tànnal kaay jabar ñëw présenté leen fii euh, si foire bi. pour gars yi gis leen. macha allah parce que loolu moo nekk contexte exposition bi. ok mhm. loolu nag moom moo gën a marqué tey. gisuma ñang baalu ma xawoon découragé mais dama ñëw gis fi loo xam ni ma ne ah bu dee ñii de ñang baalu dafa leen tëb bu yeboo ñu xaar ah, lu doy waar bergerie Wane famille léegi famille yi ñu indi fii ñan lañ ak naka la demee recrutement bi. waaw ah, recrutement yi mën naa ne. recrutement xam-xam la. waaw parce que élevage moom kon ko benn maal matul même su matee sax am critère yëpp. dafa soxlaa nga gën ko jàppale si jabar. donc loolu moo tax ñu dem tànn ay jabar yu baax selon seeni i phénotype ak seen i gène recruter leen pour résultat bi gën a mën a feeñ. comprendre nga parce que comme que Niang li ko composé moom macha allah mën naa ne champion yëpp laal nañ ko parce que. avenir ak Merlin bu ñu jël liggéey ko si waa Kër Pape Ndaw yi uh-huh. ah liggéey ko si Galaxy uh-huh. liggéey ko si si kii si Jaraaf ah boole ko waa Kër Assane yi ak magistrat bi greffier en chef Linguère magistrat loolu yëpp composé ko donc après à travers loolu mu woon ko si fenn da ngay gën a mën a xam fa ngay teg sa tànk pour tànnal kaay jabar ok parce que loolu moom yaakaar naan mooy mooy hmm. élevage quoi parce que croisement yi moom mën naan ne croisement boo gën a am yaakaar ah selon finalité bi noko gëna tanné rek résultat gëna am. gëna am lolo tax ñu ñëw xol famille yi nga xamantene ma sha allah am nañ doolé am nañ caisse rafet nañ. ñu tànn leen ñu tan leen andi leen ñang ko ñu liggéey. légui rek bi eh, ci ci ñaari box fi ma gis fi ni ci yan saa ngeen euh, euh, défé recrue bi bu ma ci box bu premier box bi. Mhm. dama fa gis ben femelle bo xam dafa xaw nek robe noir. ben nok bu ñuul mhm. kokal kal wa ah, koku moy neeru bi nek dom ci Latir yaaji nek nekk bashir ok waaw ah, Latir doomu Roi Bachir. ok yaakaar naa bokk mooy meilleur doomu Roi Bachir si mensuration parce que moom nañu nattoon faaru mbuur bi mu gagné espoir bi nekkoon si ndeyam yi. moom ngay jëli. waaw boobu moom la waaw. yàgg na fa. yàgg fa. mais est-ce que dafa ñëw daal tëb wala ñang waaw tëb mais jur na ins day nàmpal. ah day nàmpal mais xam naa ne si ñang nañ koy teg. après rek incha allah suñu jógee faar. après si ñang ngeen koy teg. waaw macha allah. Mhm. am ñaata porté wala xam oh, si mi si deuxième porté deuxième am na beneen cuur bu fa nekk bu am ay corne. waaw cuur boobu noonu maanaam Mbacke la. Uh-huh. xam naa ne éleveurs yu bëri xam nañ ko. parce que sepp dafa ñëwoon nekk con nekk añel. génn si concours bi def attraction bu garaaw. waaw d'ailleurs sax foofu nañ ko gisee jënd ko. ok sepp sepp waaw. mu nekk añel bu am mensuration teg si rafet moom soo xoolee ni ñu ko tëggee dafa garab parce que papaam doomu magistrat la waaw mais moom en tant que tel dafa nekk quatre fois biram njéemee moo tax roogu culul wi ok kon li ma bëgg fixation la ok biram njéemee magistrat ok mhm. kon xet ngeen ko gis jëlaale ko pour boole boole ko ci ay jabaru jàngbaal waaw borom euh, beneen euh, bëjëni gàtt yooyu te noir mu nekk noir blanc bi xaaj noir blanc bi waaw waaw kooku mooy bitar yaakaar naa c'est l'une de nos meilleures brebis bi nekk bergerie bi parce que gis naa ne mooy famille la plus attractive si suñu box parce que képp ku ñëw uh-huh. moom nga ñuy laaj en première mu nekk xar bu ñu am yaakaar macha allah nekk si deuxième portem papaam di jaraaf jaraaf nekk doomu jógee asali mais yaayam doomu Picasso la moom ñaata mois moom mi ngi si 24 mois ñaata portée deux portées parce que malheureusement juróon naa ñang mais dafa daanu mais xam uh-huh. naa si ñang nañ koy tegaat incha allah uh-huh. mu ci def ay añal lañ wala waaw ay añal leen benn bi doomu Nimza Junior la. borom cornier. waaw te nopp ñuul. waaw boobu sëtu biram deux la biram deux la. na ak kii macha allah Pape Dieye. moom recrue la. waaw moom moo nekkoon bergerie ba. ok papa mooy Moussa Yade Moussa bi. mooy Sali La Joie. Sali waaw moom moo jógee si Père Modou Mbaye Mbour. macha allah soo xoolee champion bi waaw. papa moo gagné. Ah, papa moo gagné fila waaw. parce que xarit moom vision la rek. moom bi muy nekk mboote nañ ko recruté andi ko bergerie bi. ba léegi tëb mais tëbagul. non tëbagul six mois la am xale la xale la waaw moom dañ ko teel a tëddee jënd ko xam ne ne am na fu mu jëm. te li wane loolu mooy bergerie Wane Faye recrutement am ñëwul rek def ko aveuglément daf koo teg ci yoon dañ koy teg ci yoon parce que élevage moom noonu la macha allah soo duggee bergerie moom fexeel soo mënu jot si meilleur uh-huh. nga fexe li nga xamante ne ñoo ñoo fa judd te amul yaakaar ne dinañ jóg nga jël si yooyu teg si sa maal parce que képp ku ñëw nga ko te xam naa ne tamit incha allah dina dina doon bidde compétition am na si moom yaakaar. deuxième box bi. Ah, bi. ku fi nekk moom mooy njëkk a présenté. waaw maa ngi présenté doomu atomique bi. mooy ci kan. mooy Japazon. mooy añel bi. waaw borom nopp bi ah, kii rafet na de. waaw ñu ngi ko recruté woon si Mamor soo ah. xoolee fan yii si a defoon leen triple transfert. ñaari doomu atomique ak benn seetu atomique. mais benn bi moo nekk ni moom la ñu andi mooy Japazon. nekk doom si atomique yaayam di sowaloo. ñaata mois ngi si 10 mois. waaw moom tamit nekk na añal bi ñu am yaakaar macha allah. waaw beneen bi mooy bébé Salma moom mi ngi jigéen woon si Latir Cissé. ok waaw nekk euh, doom si Latir tamit parce que soo xoolee ñaari doomu Latir la mooy mooy femelle bu palet bi. waaw tët bu rafet bi tët bi waaw. xoolee moo femelle bi la ñoo bokk papa ñoom ñaar ñoo ànd ñoo euh, ay doomu waaw mais si Latir bee si Bosis. la jógee macha allah moom mi ngi ñaata mois. moom mi ngi si 2 ans tamit. 2 ans. waaw oh, instant ya, ya, bi dafa tëb si ñang wala waaw tëbul na si ñang macha allah moom yaayam doomu may sa wadd la mu nekk famille bu am ay critères tamit macha allah waaw yaakaar naa école bokk na si meilleur doomu latiir tiri ak kan waaw beneen bi añel bi nii am teg bi mooy xudaa añel bu tam teg bu ñuul bi waaw mooy xudaa waaw nekk doom si fi seeg fi seeg bâtonnier la quoi ok parce que yaayam doomu greffier la mais papaam doomu bâtonnier la macha allah waaw nekk añel bi ñaam yaakaar tamit ñebe bu ca digg ba corne yooyu corne yooyu waaw boobu mooy Yasmine boobu tamit Bergerie bi la juddoo. ok waaw moom sëtu Mouride Sadi la papaam mooy Ragnar Ragnar nekk doomu Jantal Saloum Jantal Saloum nekk doomu Mouride Sadi. macha allah waaw. dernier femelle bu bay naan te teg ba ñuul. waaw boobu mooy Félicia. ah kooku rafet na waaw nekk doom si Koccu Koccu Roi Bachir. oh waaw moom soo xoolee kër Pama Sumbo la juddoo léegi si la ko Matar recruté bu nekkee xale liggéey si ma dem foofu fekk ko fa recruté ko si moom. pour ma àggali liggéey kër ga. Oh, bégé mais mais mais vous avez euh, recrutement boo xam ni. Euh, bu leen saa waay traversé. war nañ gis différents béréb béréb parce que. Mhm. ku ci nekk da am looy loolu mooy dëgg sax parce que maal moom dañ koy jàppale. li gars di wax. waaw dañ koy jàppale selon si phénotype bam nga tànnal kay jabar mais diversifié ko. macha parce que tey jii nii dugguñu benn kër rek jënd fa xar. dañoo dem bergerie bëri. waaw waaw dem nañ bu si bëri. waaw jënd fa xar yu baax liggéey am si ñoom yaakaar tamit ñoo teg. macha pour ñu liggéey ak ñoom. kontaan na waaw. rafet liggéey bi rafet na. waaw euh, exposition bi rafet na. lan mooy dernier mot et la l' adresse. waaw dernier mot bi mooy di leen remercier yéen d' abord sama gaal. Mm-hmm. waaw di kontaan bu baax comme que moom fu ñu dem ngeen fekk ñu fa. waaw di di leen remercier bu baax parce que yéen ngi def liggéey bu am solo seen élevage. macha allah vraiment donc li may lancé mooy. Bergerie One Family naka gars yi xaar. incha allah incha allah parce que su nekkee ay xar rek moom jënd nañ ko te ne champion boo xamante ni ñëpp a ngi koy waaw parce que dafa def ay jéego si intervalle même pas un an mu def quatre sorties gagné. waaw donc dafa nekk xar boo xamante ne war na mën a liggéey lu bëri élevage. nu nu mu def instant bi extraordinaire. waaw parce que gars yi ñu si bëri yaakaar ne ni xar bi mooy loolu moo tax ñu koy nëbbu. mais ñun xam nañ li nekk si moom. te xam nañ melokaanam. waaw na xam naa ne. parce que toppee foire rek doo leen tamit aussi. su yàlla defoon ñu andi ko fi coow li dina bëri lool. ba yaakaar ne dañ koy dugal concours te loolu nekkul woon contexte bi. macha allah léegi si que gars ñu bëri dañoo yaakaar ne xar bi amul ay jabar. donc loolu moo tax. mais nag attention. Mhm. sepp période sepp. Mhm. li ñu fa andi woon pour man lii après sepp la wala avant sepp recrutement bi. waaw mun naa ne après sepp la. waaw léegi nag loolu noonu. waaw am na ñu si jot a dégg. moo tax nag ñu bëgg ñëw confirmer ko ñu xam na ne ne carrément. lii nag mooy wane ni. Mhm. li li li ñu doon wax naan jabari desoon na kon man gëm naa ne tey mat na. mat na donc loolu moo tax ñu jël deux box yi soo xoolee presque lépp ay femelles la. macha allah waaw ñoom ñëpp ay waaw très beau recrutement waaw dinañ kon di kontaane waa di wax aussi na gars xaar baiser woon. jaajëf incha allah te ñun aussi suñu perspective mooy.

387 28 21 su ngeen su ngeen ñu woowee rek dina leen tettal ñu ñëw ba si Bergerie incha allah rabbi kontaan naa ñoo ko bokk di gën di kontaan daje yow parce que saa ma ñëwee di waxtaan ak mhm. naa dégg loo xam ne lu loolu xel nangu la may xam ne it may gis loo xam ne liggéey la boo xam ne dafa jaar yoon quoi ñoo ko bokk incha allah kontaan naa Chérif ñoo ko bokk yàlla yàlla gën a barkeel connexion kon nag jaajëf ma waaw bis bu ñi loolu loolu du ñàkk incha allah ah? parce que dinañ ko waajal ñu lalal leen tapi tapi waaw présenté leen xar yëpp parce que am na xar yu gën a garaaw yu nekk Bergerie incha allah rabbi